wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zaalika falyafraxu huwa xayrun mimma yajmaun bokki jullit yi way bëgg alxuraan yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar ñu deen ci jataay bu bàgg bii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko tudde toolu dëru aljanna toolu dëru aljanna digal nu it saa buñ ko rompee nu ñu dugg te xéewlu ida marartum bi riyaadi aljannati fartau qaalu ya rasul allah wa maa riyaadul janna qaala xalaqu wa afdalu zikri kitaabillahi kon ñu ngi ndokkeel bu baax bokk yi yàlla jox cër bu réy bi ñu teew ci jataay bu mag bi li ñu fi roote ci yiw yal nañ ko muurloo di ndokkeel bu baax di ziyaar bu baax suñu xarit suñu wëllëree suñu àndandoo ci waar wi Cheikh Hamdul Moustapha Diop al muallim al xabiir al abqari ki jàngal kuy wax di jàngal ku waxul yal na yàlla yokk saw fan lool te def ci barke lool te àggale sa sëpp liggéey ci waar wii defal la ko defal ko sa bokk yu baax yi nga langal di ay jàngalekat ci daara ji di ay jàngalekat ci bitti daara ji te waxtu wu nekk ñu lang yow foo jëm fu nekk ci liggéey bi rek bu ñu geesoo gis leen ñoom ñëpp yàlla na yàlla àggale seen bu liggéey te defal leen barke waxtu wi xat na waaye suñ borom dafa am lu mu wax قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون mu wax ne nun yàlla nun tigi ñoo wàcce alxuraan waaye nun yàlla tigi it ñoo koy wattu ni ko suñ boroom waxe ci alxuraan ci waxi nam wax mënee su ko firi nun ci suñu làkk waaye loolu yi ma wax moom la junj nun yàlla tigi ñoo wàcc alxuraan te nun yàlla tigi ñooy ki koy wattu kon suñu boroom ma wàcc téereem bi ci coobareem ngir yërmaandey jaam yi bi ci desit mooy ki warlu ak wattoom bi bu warlu ak wattoom sàkk na ay jumtuwaay ci kaw suuf yoo xam ne ci seen loxo la ko teg ñuy àggale nammeelam googu di dogalam googu te muy téere bi nekk fi ba ba mu koy sopp ñooñu mu sàkk ñu koy wattu muy nit ñi koy jàng ak di ko jàngale muy barab yi nga xam ne ñoom la sàkk ci kaw suuf ñu ko fay jàng ak di ko fa jàngale nga xam yoon sallallahu alayhi wa sallam nee na tataraa li ahli sama kama tataraa an nujumu li ahli ard nee na waa asamaan bu ñuy xool suuf barab yi ñu jànge alxuraan dañ koy séen benn par benn mu leer naññ ni nga xam ne waa suuf buñ téemee buñ buñ ti buñ xoolee asamaan guddi di seen biddiw yi mu leer naññ mu sàkkit ay xalaat ak i pexe yoo xam ne dañ koy dibbandikoo ba wattu ji mën a am kon sàkk aw nit wu koy jàng ka jàngale sàkk ay barab muy këg bu yi këg yi nga xam ne fi day sàmme téerim bi ñu koy jàng ka jàngale waaye sàkkit ay moyen ay pexe ay tëralin yoo xam ne da koo def ci nit ñi ngir ñu di ko sàmme téere bi bokk yi may wax ne daara ci boppam dinaa ko faral di wax daara ci boppam bokk yi ay problème am ay jafe-jafeem seeni solution mi ngi ci ñetti force ma bëgg képp ko fi teew mu bàyyi ko xel ab jaam baraana muy dikk yàlla ay loxoom daan koo yaa rab bi may ma yaa rab bi may ma fekk lam koy may sànni na ko bu yàgg ci ay tànkam waaye suñ borom dafa diiñ du ne mukk sëggal for teewlul ba bu la ko mayee nga xam ne may la may na la ko yaa ca des sam xel ak sa yitte may wax ne jafe-jafe yi daara problème yi daara solution yi mooy li koy régler mu ngi ci buntu daara ji wala nga dem mi ngi ci biir daara ci des nag waa daara ci seen bopp jugaat organiser wu planifier nos yooyu nga xam ne ci la lii rek les solutions lii rek les problèmes yi nekk ma tudde ko tanzimatun thalaas fi xidmati daaraat tanzimatun thalaas fi xidmati daaraat suñ boroom mi warlu wattu gi moo ko wàcc ci jamono ngir mu ñu jëfandikoo ko wattu téere wattu wattu mu ñetti force benn force bi moom lay tudde al awliya ndey daara yi ne ci ak bàyyi daara yi bi des mooy maanaam alxirijuun ñi génn ci daara yi bi des mooy société bi nga xam ne moo wër daara ji di milieu bi daara ji nekk ñetti force nga nii yoo xam ne buñ ci dellusee te nos ko te jëfandikoo ko suñuy problème dootuñu xaar kenn kuy génn ci bitti ngir ñëw rek la gis nga ñetti force yi di parents yi jur donga yi ndey ak i baay di ay ndeyi daara ak i bàyyi daara ak ñi génn ci daara ñi génn ci daara du ko fa mokkale alxuraan mooy ku fa fere ijji wala ko fa yendu genn bëccëg ak société bii nga xam ne ñoo uuf daara ci di tibb di yóbbu di ko dimbale ci cet di jur di ko jox ma wax nañ am na ñeenti melokaan yoo xam ne daje na ci ñetti force yi te ñeenti melokaan yooyu kuréel gu mu daje ci moom loo bëgg a def man nga koo def ci sottal projet ak ko ñeenti melokaan yi bi jëkk mooy al asada ñetti kuréel yi seetlu ko bu baax benn bu ci nekk dafa originel ci daara ji dafa dugganteeg daara ji ba nga wax ne daara ji moo ko produire daara ji moo ko génne moom it ba tey it moo génne daara ji da nga ci fekkoon al asaana te lu am solo ci kuréel te mooy lu originel ci daara bi des mooy maanaam at tajaddud force na boo xam ne benn bu ci nekk mën nay bees de beesaat di yokk ndax fii nga xam ne daaraa ngi liggéey liggéey bi mu war a liggéey mi ngi am ay parents kon day daara bàyyi daara moom du fa jóg fi daaraa liggéey mi ngi am ñu ciy génne ñu fa mas nañ faa jaar ñu ca génne kon bokk na ci seeni melokaan seen force mooy mën a tajaddud de bees ak a bi ko ñetteel mooy euh, al ixtisaabiya mooy kuréel yi lëkkale lëkkaleeg daara ji dafa jéggi ay intérêt matériel ruux moo leen lëkkale pas-pas moo leen lëkkale ndax téere bi suñ borom bi moo leen boole te téere bi kenn waxu ci kenn ko jàngal ma fay la wala yóbbu fa sa doom ma fay nga xam ne kenn ku ne ci ñoom ñii am na gëm-gëmu de téere bii daara ji da cee war a def ngir jàmbu yàlla kooku daara ko am ci nit ñi ci façon boo xam ne amul benn force bu ko amee ci nit ñi maanaam waajtaay ngir def ci fab sa ñaq def ko ci daara amul beneen projet ci kaw su xam ne boobu sens bi ko ñeenteel mooy al istimrariya am na doole yi continuité mooy waxtu nekk muy continuité du tas fi nga xam ne daara ji mi ngi liggéey kon fig daaraa liggéey ñetti kuréelam yii da nga ci fekk al asala muy lu original loo xam jógewul ci bitti ñëw di intervenir ci daara ji wa illaa dafa nampal daara ji daara ji nampal ko li nga jur daara daara ji jur ko kon lu original bi des mooy maanaam tajaddut waxtu wu nekk mën nay bees di yees ndax wa waajur wu andi sa doom yokk ci kuréel bi donc bu génn yokk ci kuréel bi askan wi nga xam ne it mi ngi fi moom it di ami doom di njaboot di jur di jox daara ji daara ji jàngal leen ko delloo moom it waxtu wu nekk mi ngi bees bi des mooy maanaam al ihtisaabiya mooy xol yooyu ko séq yépp suñu borom def na ci ñoom waajtaayu ñu liggéey ngir yàlla ci téereem bii nga xam ne daf leen ko dénk te leen ko laaj wa sawfa tusaluun na waxoon bi ko ñeenteel mooy al istimraaya man di continuer bañ a jeex bépp kuréel boo xam nag yaa ngi yëngu ci mbir te ñeenti xasaais yii ñeenti melokaan yi daje ci yow yow lu nekk mën nga koo def fu nekk mën nga faa yegg ndegam nga xam ne xusnu taxtit te mooy planification bu baax organisation bu baax mi ngi lay gunge di la bi bijjanti ma gàttal ndax waxtu bi dafa xam nee awliya yi mooy parents élèves yi ndey daara ak bàyyi daara li tax ñu am force mooy ni ma ko waxe dañoo man di yokku waaye it mat sëkk nekk ci condition yu mat sëkk ngir sa doom man faa nekk bëgg nga daal li gën a rafet ci ay tabax gën a set te gën a leer ab dund gën faa am ak wér gu yaram gën faa am képp kii képp ku yóbbu doomam ci daara am na boobu yéene waaye du ko man mel na moom waaye yii na ko kon su boobaa woo ko mu ànd ak moroom ma ñuy parent d'élèves di ay ndey daara di ay bàyyi daara ndax ñaari mbir doomam gi fi nekk nekk ci condition yu baax alxuraan di ko yàlla diin kit mu bokk ci ni koy sàmm moo tax damay wax ne bokk na ci li daara yi war a def te organiser ko mooy bépp parent bu indi doom jox ko carte membre muy góor muy jigéen ndax am na yéene def loxoom ci daara ji ne ko fii ngay jaar moo jox ko carte membre bu dee góor mu bokk ci bàyyi daara yi bu dee jigéen bokk ci ndey daara yi te kooku ñu def ko obligation bi des mooy xir yi juun yi képp koo xam ne jaar nga ca daara ji nga yàgg fi nga yàgg fa yàgg nga mokkal nga bañ a mokkal sama waajur da wax naan yàpp ci daara ji damay bañ a dem ci détails bu baax a baax waaye waxtaan woo xam fonk naa ko te bind naa ko te dinaa ko tasaare mu nekk loo xam ne Eh, du ay lii bëkki luppoon waaye boo xoolee ñetti force yi benn bu ne da ngay gis ci jamono ana lan la mën a apporter daara te am na daara yoo xam ne tey jii rappoon nañu wala ñu sànk wala ñu tas la leen yëkkati ba ci kaw mu taal leen teg leen ci yoon yu liggéey liggéey bu rëy mooy ñi fa génne wala ay parents élèves wala wala askan wam nekk kon incha allahu taala da ngeen ko fekk ci beneen barab boo xam ne bëgg naa seen daara yi daal déglu ko bu baax te te bàyyi xel ne eh, seen seen